ليلة القدر خير من ألف شهر soxna si dafa daan wax ni sama cofeel ci alquran ñëw ma ci kenn sama gëm sëñ Tuuba ñëw ma ci kenn ndax jàpp ma ne kenn gën na ma ko gëm sama wóolu sëñ Tuuba ak sama doylu sëñ Tuuba ñëw ma ci kenn la ko la ma koy tëjee nag mooy fas naa yéene lépp lu ma am naa ko def ci liggéeyal sëñ Touba sama dund gépp fas naa ko yéene jeexal ci liggéeyal sañ Touba loolu moo sababoon néew na fu ko waay fekk te fekk mu yor kaamilub alxuraanul karim di jàng wala boo yorul kaamil bi di jàngit ma ngi koy tay yoon woowu mu nekkoon nag nga xam ne dafa jeexal léppam ci liggéeyal sunu borom tabaaraka wa taala te da def ci alxuraanul karim defal defoon boppam taale bi sëñ Tuubaa boo xam ne du wàcc mukk mukk ci ci toolu sëñ Tuubaa loolu di ca la nu yar ca la nu te moom la digal te wallaahi bu ne bu ay gor ca la ni sax ba duna tukki sadatin amwati tabkil te nekkul rek moo fi nekk fas nañu yéene bis bii fa ko soxna ma yóbbu woon fas nañu ko yéene yóbbu fa ko gën a kawe. ndax Serigne Touba amul tànki gannaaw te bëgg-bëggub soxna may ak pas-pasub soxna may ci liggéey Serigne Touba àggoon na foo xam ne bu fi bàyyi woon bant sax bant boo war naa mën a wéyal liggéey ba dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal Serigne Touba dundam gépp moo def ko ci sopp Serigne Touba lu mu am mu def ko addi Serigne Touba delloo ko ci jànkate alxuraan delloo ko ci daara yi yi delloo ko ci bokki jullit yi kon nag bis ci woo bokk yëpp di njabootu sëñ Tuubaa ji di ci woo bokk jullit yëpp di ci woo bokk taalibe yëpp ñu fas yéene nag tënku ci ni ko soxna si daan def mooy la ca jiitu mooy sax ci njàngum alxuraan yi boo dem daari kaamil yi nga xam ne ñooy saytu njàng mi kenn ku ci nekk sama ndaw ak seen fi fi yow sunu sunu kàddu yi yëkkati nañ ko teg ci sa loxo sax ko ci yow loo daan jàng ci alxuraan nga dolli ko defal ko def ko addi sëñ Tuuba def ko addi soxna may mun di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defal defal ma ndimbal ak tawfeex ba nu àgg ca bis ba defe ko ni ko son si bëggee woon wala nu ko raw te lépp luñ ci taatan sunu borom lawal ko ci sunuy loxo ak loxo yi mboolem njabootu Sëñ ko ci mboolem taalibi Sëñ Tuubaa gi lawal ko ci mboolem jullit yi ñaan réew mi nekk itam sunu borom def fi jàmm ak déggoo ak tawféex ak ko ànd ci barkeb sëñ Tuubaa def na ay jullit xaqan def na ay murid saadiq te lépp lu ñu jëf rek def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa te daje daje si ngërëmu sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.